yow mi yàlla dogal ndeysaan nga am xar barke mal xaamal kar boo am na koo xam mu tam xar yow dogal na nga war a tëbasee aw bëy <laughs> rayal ca xam ni yàlla dogal na am na koo xam amul aw bëy mi yàlla dogal nga war a rey ginaar rayal ca xam ne am na koo xam yàlla dogal na amul ginaar yow mi yàlla dogal na nga war a rey kaña barke mal xaamal kabar ala lëppin coo lañ koy wax ma jamono baax nga xam mooy léegi la rek ñun ñu naan du ma tëbasee wu béy mais papay duudu mii béy la tëbasee béy wi na ci kër gi naan eh, béy la rendi ñu amul complexe di leen rënd ci béy yi boo may njëgu béy rendil ci bay yi sa ndaay sa baay ci béy leen ci ci béy leen tëbasee ba yegg si fii barke mal xaamal ak kabar naan su ma mu xar mu baax demal noonu rek ñu ñëpp mën a jënd xar de ma ñoo xam ne suñu tëbës ndawal la leen di may jërëjëf yàlla suñu borom ñu ngi lay sant bu baax a baax war a tëbëseew bay jël ni ren tëbësee ren jii barkeew balxaama la kabar bu daganam mu yuutu am tan taf ko ci sama bopp man jërëjëf